ramadaanangi weeru yërmande ramadaanangi weeru njéggale ramadaanangi weeru yërmande ramadaanangi jur koor gi jeex na ah sama xaale war ngaa kontaan xam nga ragal koor bu bëgg de ragal koor la de moom kii ñooyam bu wóoree rek day laaj ci la ñu sax bind moom daal di bëgg dee day yaru di bu koor gi ñëwee baalu koor gi yaakaar naa baalu bi ah xam naa yow baalu bi baal maa xam naa sama naa baalu maa baalu maa

asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ngeen def. gisaar baax na gisaar baax na may ñu jàmm naka weer war mais noonu waaye de tëjee naa jeex. wala ah kon. ah kon de maanaam ah. waaw soxna Mbaye léegi gisul naa léegi mën ngaa seetlu xéwal gi mais moom tey moom gisul mbégte la moom. inshallah bisimilah te moom gis nga te moom ñëpp war a dégg moom. waaw waaw. bisimilah léegi mën ngaa seetlu xew dafay gars yi mën a kii xool yi xool yi. yéen a ngi rafetlu waaw waaw maa ngi rek bu laal tuur. ah moom mooy que damay delloo la. mooy moom mooy dangay delloo de. man sama man a. non non damay delloo delloo rek. si da bëri. waaw yow mit na si yow. yow da nga naan nelaw rek. nelaw rek xam nga rek. ah ah si ngoon si ngoon mi ma ma jëmm la wala tàmm ko ah waay ah. ah waaw waaye mais nag ku ku dul war waru na naafle nag. bisimilah doo tam far. waaw maanaam maanaam ndax war naafle da nga war war naafle ndax ma tax ma duñ far. waaye ndax xamal naa la ko. ah am na ci ay dem dëkk ba war naa la si carré. waaw bu ne bu ne dem dëkk ba bu ne. damaa sax dëkk ba lañ dem na. waaw bu paree ñu dem daal lañ dem mais fa lañ fekk ñoom. wax naa leen xaar leen bu paree. nee na dañuy dem xëy na village la nga nii xëy na mu ngi seelaale seen maam ak yooyu noonu. waaw ah. voilà day mbokk yeeg yooyu noonu. Mouhamed da nga nelaw. Sallaw. ah daa daa xiif. xiif. yow daa ñëw ko jox sa wàll. ah moom mu daan woor moom moom moom daan woor di kon. kon léegi damay nekk wala kon kon gis nañu kon woor mu daal. waaw ah, woor nañu ko fii léegi kon kii bi ñu mën ngaa woor. ah waaw da ngaa bëgg continuer. Ah. waaw kon am la bu mu continuer. ah métti na de. ah métti na de génn naa ci moom. sant naa yàlla bu baax. maanaam am na xewal nag. yéen a ko war a dem tool rek ci la sama xel la. ah dégg nga sama xel dama rek ba de. dëgg la kon kon lu baax kontaan na lool. soxna bi macha allah laaf bi am na solo de. waaw laaf bi macha allah xam nañ leen ñaama lool. yow moom yëpp moom. moom yàlla na lu baax xool ko. xool doomu kay ba ma xool mu jël sama. mu jël sama waay waay xale bi waay ah waay déedéet waay. waaw man maa la gën a bëgg laa. laaj nga sa papa xam na ma bu baax a baax. Baaru. loolu lii. ah lii gën a rafet. lii laa gën a rafet. et si Baaru Baaru. naa. waaw sëñ bi ma ne xam naa maa ngi ñëwee ko. day ëpp naa ne bàyyi nga xool gone rek bàyyi jàll rek. ah xanaa jàll ñu gisoon ñu ñëpp ànd ñëw. ah des na waaw daal yëpp ñu ne léegi na ngeen comme balaa ngay dem nga soññee ma jabaw gi rek bu dafa ñu gën a fonk fonk jàmm yàlla lu mel ne koor gi nga xam si moom la génn wax dëgg fa ñoom ay jàmbaar rek. ndeysaan ndeysaan ay jàmbaar bu defee balaa ngay dem. nga dénk leen ay kàddu rek. comme maanaam weer weer la wax ne weeru. weeru lekk leen lekk leen tey ndox. weeru bëri bëri gis na ci wàllu jàmm yàlla koor yu bëri ndax suñu waxee na weer wi bokk na si weer yi gën si weer yi nga xam ne weer yi nekk na yoo xam ne si lañu wàcc alxuraan ci biir weer yi nit ñi dañu am laylatul xadar aw yu bari daal si weer yi daal xam ne suñu borom moom yaakaar naa ne weer yëpp lay fay waaye léeg-léeg weer bi moom dafa ëpp tiyaaba ci ndax maanaam jaam yàlla gi seen ndax jaam yàlla jaam yàlla nga na suba sa bakkan ba du mooy yàlla ci weer ko a yomb ci yeneen weer yëpp mm-hmm. kon nag gën a góorgóorlu gën a fonk ko diine fonk bu baax baax xam ne nag woor dañ ne bu doonee xale jaam yàlla mag ñëpp jaam yàlla bëpp mag def da koy def ba mu def boo xam ne nag day ñëw kàttan ne mel ni woor waaye dañ ne il faut nga koy tàggat muy jéem a woor bu sonnee sax mu naan bu xiifee mu lekk ko ndax bu ëllëgee mu tàmm ko daal voilà kon nag gone yi ba ñu tàggatee ba ñu toll nii mën a woor kon laa naa loolu toofa toofa toofa macha allah ah, ah, ah kàddu am na solo moom comme ni ngeen ko déggee rek nga jéem ko jëfee noonu rek incha allah macha allah am nañ ci mbégte loolu nag. waaw macha allah incha allah xam naa ne ñëw yëg rek ah waa kon baax na. waaw incha allah baax na nuyu ñëwoon gi rek baax na baax na baax na loolu la ñoo ngi dem ñoo ngi dem incha allah baax na maa ngi lëkk ñëw maa ngi lëkk ñëw incha allah ah waaw garaaw mën naa ko baax na incha allah baax na incha allah incha allah